bu ko defee ëllëg si biir incha allah ñoom ñëpp dañuy gis suñu yaay yooyu ñu ñu ñu ñu financé woon ñëw seen i jëndal seen bopp seen ginaar ba seen biir kër reer ko fa doog ñëw si jàq jeeg si jumaa ji fanaan foofu pour wax si nabi mais duñ ko def lu ñuy bëgg mooy néew di doole bi yëpp daje ñëw seen biir kër yi toog di xaar reer ñu leen di toog naan ran leen ku bëgg ginaar demal si ran ku bëgg béy demal si ran ku bëgg gëlëm demal si ran ñu leen di filmer ñoom rek war a am duñ jàppale kenn loolu du diine du lislaam l'islam karaasi la lislaam mooy nga jàppale sa prochain jox lekk du du du affaire bi parce que nappee nit ki nga jàngal ko nu ñuy nappee gën nga koy jox jën te ñoom dañuy jox nit ñi jën léegi ana yàpp yi ñu tegloon foofu ay nag yu ñu jëlewoon Mali ane nag yi dee nañu ana lu ñu lekk demuñu ko duus ñan ñoo fa gàmmu tey am nañu si bëri tey reeruñ mais tey bu ñu jëloon moonin boobu ñu jëndal ko booy même bu dee ay jakarta ñu ne booy fii mooy seen kii ñaata personne ngeen trente ñetti jakarta ngi nii organiser wu leen ko lundi ba mardi na moomul dawal mercredi ba jeudi moomul dawal dépense bu ngeen ci am dimbale ko seen papa loolu day tax réew mi booy bu ñu naroon jël gaal sax duñ dem parce que dinañ am suñu téye dinañ am lu ñu nekk dinañ am lu ñu naan loolay dëgg mais puukare bi comédie bi taasu bi solo bi santé yi loolu du gàmmu mun ngeen ko def seen ngénte yi seen réception yi seen xew yi seen tuur yi def leen mais guddi nabi sallallahu alayhi wa sallam guddi nii la wax kuy nabi mais nekk ngeen foofu ba jógee fa amul ku julli si yonent bi amut parce que yi ngeen sol munul julli ay greffage ay paccal ay montewee ay salon munul julli buñ ko waxee rek am ñu mer naam jalousie ku wax loolu sa problème na <laughs> ñun jalousie ku dul ñoom faale wuñ leen ku dul ñoom lijjanti wuñ seen alal gi nañ ko lekk na lew ñun luñ doon lekk di naan sombeeg karaw ak fondeeg mbaxal ak si la ñu lekk ba toll ni ñu toll nii alhamdulilahi rabbil alamin fu ñu waxee ñun ñu ngi wax fu ñu doxee ñun ñu ngi dox ku xeebul sa noos kenn dàqu la noos lijjantiwu leen ku dul ñoom sax faalewuñu leen donc ATM jëlal micro bi kële waaw non non colonel laa bëggoon wax comme moom day wàcc daf fi yàgg colonel laa bëggoon wax s'il te plaît colonel ubbil bi tey ATM ñëw après kii ok merci Kali bisimilah colonel. voilà dafa am rek euh, lu ma bëgg résumé ci ñenn intervenant yi nga xamante ne dañu yéeg peut-être xamuñu concept live bi ñu ñëw bëgg sax détourner live bi yóbbu ko ci beneen sujet bi nga xamante ni te du vrai sujet bu ñu teg pour di ci waxtaan vrai sujet bi résumé bi daf nga ko léegi loolu sax ci laa bëggoon ñëw xam nga mooy lan dañoo ne dañoo gis ay image ñun demuñu kër Aziz Ndiaye ay image la ñu gis mu ngi dox ci TikTok bi YouTube bi Facebook réseaux sociaux yi foo tourner image yaa ngi fa xanaa nga gumba mooy tax nga bañ ko gis dama ne dama lay citeel parce que ñoom li ñuy def nëbbuñu ko Maam Ndiaye Savon dafa tatoué yaram bi tatouage ba ci côté ween bi sol taille basse boo xamante ni ba mu sëggee soo yërndoo bu baax di nga gis cusu ween bi ngeen baal ma ci wax ji takk greffage boo xamante ni mu ngi wàcc ba ci suuf taati yi muuruwul kolluwul daful dara takk ay ooram ba pare mu ne dafa dem pour màggali guddi yenent bi Wally Seck wootewul Bass Thioung wootewul guddi yenent bi la ñuy dem màggali Aziz Ndiaye moom mi nga xamante ni moo woote ci biir këram ñu gis ko mu jël loxoom nuyu maam Ndiaye savon dalal ko waaw Aziz Ndiaye sëgam xam nga gis nga daf ñu ngi def benn affaire boo xamante ni gravité bi ci nekk kenn xamul lan la gis nga mbooloo boo mënti dajale wallahi azim luñ fa daf ci bakkaar yow mi leen dajale am nga responsabilité ci mbooloo boobu responsabilité bu mag la donc moom mi woote mu gis yenn yi di am moom mën na teg ay reglam ne fii kat ku fi ñëw segam guddi yenent bi la nañ leen fexe di yiwal colin gi nañ leen fexe di yiwal nangam teg say règle te dañ koy respecté mais màggaluñu guddi yenent bi dañ fa dafa gën a nuru ak soirée Wally Seck que guddi yenent bi dañu waxante dëgg ko gis image yi buñ la ko tegalee en dehors de kii da nga naan fii Wally Seck moo woote woon di tëgg soirée donc nag ci guddi yenent bi ñun mënuñu accepter loolu te Cheikh Alaaji malek si wootewul lii Cheikh Ahmadou Bamba wootewul lii Baye Niass wootewul lii Kaliphone Sall da nga fee teg léegi léegi benn vidéo boo xamante ni sëñ Mansour si moo doon génnee ci ay kàddu boppam ne araam na ci jigéen ak góor ñu joxante sax ay loxo nga gis benn maire bu jóg te dafa muuru dafa yëw de jóg di indi alal di ko jox mais dafa mel ni ku ko dàq ba pare waxaale discours bu am solo mais léegi su ñu ñëwee ci oustaz Modou Fall mii moom peut-être mu ngi woon foofu ne oustaz la dafay génnee kaddu yàlla day fàttali nit ñi lan moo tax ñuy màggal guddi gi ñu war fa waxtaane yonent bi moom oustaz Modou Fall mu gis jëmm yooyu noonu daf seeni xeesal sol seeni taybaas tooj seeni ween tatuwe seen yaram au lieu que mu yedd leen ne leen ah lii ngeen nekk nii kat ak guddi gi àndul colin bi ak guddi gi àndul ñuy yëkkati alalam di ko ko jox muy jël xaalis bi di dugal ci biir poosam balaa muy daaneel ci kiiwam ñu gis baas bi aussi zéro organisation parce que góor ñi ak jigéen ñi dañoo jaxasoo dafa di lu ñu gis góor ñi ak jigéen ñi dañoo jaxasoo moom oustaz Modou mu taxaw ne jóg leen kenn ku nekk ki nga dennal nga akolaat ko maanaam jëlal say ween nga teg ko ci dënn ko góor est-ce que loolu méngoo na ak li tax guddi yenent bi loolu taxu ñoo jóg loolu taxul ñu woote guddi yenent bi moom taxaw na fa di gërëm ay dañ maa may terrain quinze million léegi mé nañ la terrain 15 millions ku la abali beut fu ko neex ngay xolé parce que da nga nekk diko ray waxo ko dëgg mais bu waxone Aziz Ndiaye dëgg dama né Khalifa Sall xam nga neex na nit yéeg fi taxaw ratatati wax té mëno teg ben preuve dama la tégal ay preuve né la Aziz Ndiaye damaa juddandoog moom yarandoog mom màggandoo ak mom dëkk même quartier que mom keur bayam bay Ala Ndiaye mu ngi fi ñoo fi dëkk école 20B cité Jinkom bi mu jangé dama la ne billaahi su guddiwul woon ma filmeel la ko ndox maa ngi fa fees dell te moom fa la jàngee moom Aziz Ala Ndiaye mii ci école bi la jàngee ay ASC bi nga xamante ni moom la footballé cadet ak senior muy cité jinkoom fii ay ASC bi dafa taa instant yi ay ASC bi amuñu fu ñu entraîner gis nañ Elimane Ndiaye fële ca Liberté 6 mu dafa geste bu noble defar foofu gazon ne ko synthétique ko dafa ay rigol ndox du fa taxaw defal ko ASC loolu rek dara la mais dañ la sam sa mbokk dëgg mooy ñi la jege tey ji Aziz Ndiaye banlieusard la doomu baadoola la comme Kali ni ngay waxee doomu baadoola Aziz Ndiaye judduwul fekk fi am-am déedéet judduwul fekk fi am-am ni mu def ba am nag moom moo ko xam waaye nag nit am na fi ay milliards wax dëgg fa te dégguñu ko ci yenn yi waaye moom dégg nañ ko ci ay bato engrais ay milliards magam taawu kër gi Massata Ndiaye États-Unis dégg nañ ko fa ak ay problème ak xale bu jigéen ci jëm ci xaalis ay ay oto 4x4 Massa Massata mooy taawu kër gi ñoom bay Alla Ndiaye ñoom Sóora ba ci tey ma waxaat la leneen loo xamul dama ne Juma njaay rakku asi njaay bu mu bokkal ndey ak baay ak sama xarit benn bakkan magam moo ko takk mooy soxnaam kon kay xanaa ci man la gën a jékk ma ma ma maral ko taatam <laughs> ñii di yuuxu nii ku ci taal live boo demee ci live am da ngay ruus parce que ay cinquante personnes mënuñu koo am. man su ma taaloon live léegi léegi léegi le minimum dinaa am mille personnes su ma defee vidéo le minimum dina am quarante mille vues mais ñoom nee naa la ba pare ñu woowee seen bopp ay influenceur imaginez wax ji kër Aziz Ndiaye laa jóge yow fa nga jóge kay heure bii nii wax dëgg fa yàlla bokk nañ la kii nañ la boo ñëwee da danga da nga koy tagg rek taggal ko ay maamam nañu waxante dëgg parce que loolu la ñuy dundee léegi jeunesse bii lan la ñuy avancé na nga def

te duma ma sonn du kii moo tax nga gis gars yi di fekk nit ñi ba seen biir kër di leen agressé di leen rey moo tax nga gis gars yi di romb nit ñi ci kaw tëli yi di di kii mais yooyu nañ ci wax yooyu mooy priorité Sénégal tey dama la ne roi Baudouin bii bëri na ay néew yu fi ne yoo xamante ni manque de matériel la ci hôpital bi mais jeune la boo xamante ni dafa dëkk fii ci géejawaay nekk pire produit géejawaay bàyyam ak léppam juddoo ci géejawaay way juróom bu jigéen ba tey mu ngi yeewoo fii Géejawaay kër bay Alé Ndiaye fa la fa la nekk ba tey wéy jur Aziz Ndiaye bu jigéen waa tey hôpital Roi Baudouin bu mënu faa dem xool lu ñu manqué ci ay matériel ak ay kii mu équipé ko defal ko quartier defal ko waa Géejawaay ñu xam ni kat wax dëgg fa yàlla kii mais lan la ñuy préférer à la place de ça jënd ay nag rangale ko dem di rey saam ko ay mbuus di ko saraxe sacrifice la il faut qu'on ose le dire oh, qu'on ose le dañuy sacrifier kanam la jëm parce que deret la ñuy soxla dañuy rey nag yi duñ ko ñàkk mukk chaque année day gën a bari moom mii jëmm ji Aziz Ndiaye toog na fii nee naa la en plein live taxaw di bind ay alxuraan di jaay butéel un million trois millions pour ay ubbeeku léegi loolu lan la du arnaque arnaque la butéel yooyu du dara il faut nag ñu oser ko wax ko dama ne Sadio Mané. dëkk ba mu amee di école la ay hôpital te boo wax. très bien dafa tabax ay école nit tabax mmh. yoo xamante ni wax dëgg mmh. fa yàlla Sénégal yëpp dañ ci gis seen bopp ba tax na daal Kaliphone di la jaajafal thème bi nag bu mu yem fii tey suba gannaaw mmh. suba semaine bi yëpp ci lii la ñuy wax luñ ci góobe gar ko jaajëf Kali yàlla baax na lenn daal xam naa ko nit ku ne sa xaalis yaa ko liggéey yaa ko moom bu la neex sax taal mais tey Sadio Mané référence la góor gi Sy Dieng référence la Sadio Mané ba mu amee milliard am tabaxul ay kër luweeku dafa ñëw tabax hôpital tabax école loolu la ñuy xaar góor gi si jeen basket métti na lool sa loxoy day woo koŋ ba mu amee alal tabaxul ay kër di ko luwe tabaxul auberge dafa ñëw ma ne la di tabax di dimbali nit ñi si àll bi di jënd ay beek ay pousse-pousse c'est ça ce qu'on attend de vous nag yi ñuy rey ak gëlëm yeeg amul benn sens deret bu ñuy tuur bi moo bëri Sénégal dañoo doyal si deret bi suur nañu deret bi ATM vite fait bismillah uh-huh. ana di ma may temps vite fait parce que faut que man tamit. kon tey jox sama si non comme je rek rek wax rek. pour mu ki rek parce que ñom soso dañu bëgg wax ak ki ak non may ma may rek ma parce que yow xam nga ni man buma soxna suis problème la ngi fi. mais euh, ma lay nuyu. di nuyu ñi nekk ci live bi ak ñi live bi ñep ma ngi leen di jox seen di am contentement mbégte ci Euh, tey nag da nga ñëw indi benn thème boo xamante ni dafa large te kenn ku ci nekk li nga xalaat képp nga ciy wax léeg-léeg itam ñun ci suñu bopp nañu waxee loo xamante ni yàlla mooy tax ñu koy wax wa ilaa ay preuve yu leer nañ lañ ciy am ku loo xàkkun walaw kaana murran dëggay njëkk te moom mooy mujj tey ji tey bu fekkente ni ku ñuy wax Aziz Ndiaye dafa organiser gàmm jënd ay nagam gàmm ku ko xam-xam ne da ngay jënd ay nag pour rey ko pour berneel nit ñi gàmm ku ko xam-xam ne dangay invité ay nit ñu ñëw ci biir gàmm gi ndax nga mën ci berne ay nit léeg-léeg bu fekkente ni ab cant nit doo koy def ab cant new ma dafay cant moom damay waxee sama xalaat cant nit doo koy def nit kooku di def cant buy def cant day mel na puukare ab cant fu ko nit di defee ci àdduna dafay mel na puukare lay doon day mel na dafay puukare léegi nag kantaaka Aziz Ndiaye alalam bi mu am ku xam Aziz Ndiaye xam na ni waajuram ay commerçant la ñu woon daan na fa dem di ànd ak ñoom di liggéey commerçant ku leen xam-xam ni bokk nañ ci ñuy ëpp alal ci senegal ci wàllum jënd ak njaay ñu mën nañu liggéey seen xaalis. est-ce que mën nga may tuuti ma recadrer la s'il te plaît à thème. waaw non non non non man damay sama xalaat rek bëgguñu bëgguñu bëgguñu ñu jël débat bi. dañoo wax ay associations yow yow yow yow taxaw may wax. non xaaral xaaral xaaral ma recadrer la bu dee comprendre fu ñu waxee. ñun danoo ne gàmmu gi kër bi. Aziz Ndiaye na am cinq cent milliards de dollars d'euros ñun loolu. lu jëm mais organiser euh, jouru guddi gën gi mi def sallallahu alayhi wa sallam ay jigéen toog ay góor toog. ñii pàccal ñii gën a ñii may oustaz non ñëwal foofu direct. Aziz non non non waa léegi waa léegi waa léegi Kali Kali déglu Kali Kali ah. Kali dégg may déglu nag. xam nga dañoo ñëw dama ñëw ci laaj loolu la gàmmu bi puukare bi. waaw mais waaw mais déglu wax. waaw mais Kali mais ma wax dama ñëw ci laaj bi dégg fi dégg fi nit ñi ne ay sacrifice ay nag yu ñuy rey sacrifice ay alalam fan la ko jëlee wax nañ ko fi.

ok mais moom moom sama xalaat léegi bu fekkante ni kooku noonu xaalisam boobu noonu du ko man Aziz Ndiaye xawma ko musuma déggante ak moom téléphone wallahi billahi barke Serigne Sall musuma déggante ak Aziz Ndiaye téléphone xawma ko xawma damay wax te yàlla tax rek sama xalaat lay wax waaw léegi bu fekkante ni gàmm am na ay nit ñëw nañ fa nit kenn ku si nekk boo ñëwee ci bërëb indaale sa sa sa melokaan gi indaale ak sa éducation bi nga bi nga yaroo yar gi la yaree moom ngay indaale jikko ji nga yor moom ngay yóbbaale. léegi nag bu fekkante ni yow da faa dem yóbbu fa ay puuk rek wane fa colin gu bon nag yeneen ak yeneen nag loolu yëpp loolu Aziz Ndiaye mënu si dara parce que moom yarul nit ñi dafa def gàmmam rek. dindi ay nag si dara te moom moo ko organisé. moo ko organisé nga ne mënu si dara. waa mais. ci dara gis na ni loolu bokkut ak guddi gi mënul wax hey arrêté leen li taxul ñu jóg. def bâche ay góor ak jigéen daje ci biir ñoom ñëpp ñu toogandoo ci biir nga mënu ci dara. te moom mais il faut moom en personne ayu mbill bi mu ngeen ci biir bâche bi. mu toog ak yi nga xam ne dañuy toog ne góor ak jigéen waruñu di làng waxuma laa guddi yonent bi ñu toogandoo ñoom ñëpp ñuy dem ba naan accolade leen. oustaz bi si boppam moo ne euh, euh, jóg leen ngeen accoladante mais il faut nga déglu leen sénégalais tamit bu ñuy def débat bu sérieux nañu sérieux ñun ñëpp waa léegi kan amuñu problème Aziz Ndiaye wala keneen mais dëgg bu jotee nañu wax dëgg bi guddi nabi li wax sallallahu alayhi wa sallam Aziz Ndiaye bu organisé soirée wala lamba dalaaw na dajale sagat yëpp foofu suñu yoon nekku si mais bu ñu nee guddi nabi ñu toog si bâche ñu toog góor ak jigéen ñi waruñu làngu foofu jigéen ñi dañ war a muuru dañ leen ko war a exiger loolooy dëgg ku muuru wut ñu ne la ci biti doo dugg si bâche bi parce que guddi nabi lañ wax dañuy mawlut Ah, ok arrêté leen tamit. léegi léegi Kali man mën naa yeggale wala déet bu fekkee man mën naa wax nga may ma ma wax bu fekkente ni mënu ma wax garaawul parce que suma frère nga mën naa bàyyi live bu beneen yoon su ma gisaatee beneen débat bu mu intéressé. ma boo dee Aziz Ndiaye mënu si dara. mënu si dara te moo ko organisé. lamb boo fay ñëw boo fay ñëw est-ce que da nga yore paaka wala béjjén. dañ kon bu ñu ne buddi nabi bi ku muuruwul gardien yi nga teg si buntu bi nga ne ku muuruwul bu mu nga ne mënu si dara pour lan waaw waaw léegi léegi ok baby put any one ok léegi Kali bu fekkente ni moom dafa organiser li nga xamante ni moom mooy gàmmam nit kenn ku nekk ngay organiser gàmm kenn ku nekk ak sa jikko ak sa melo bi ngay indaale kooku kan moo wax ni Aziz Ndiaye ni nit bu defee lii wala nit du jóge dëkk ak dëkk ñëw ba sa kër nga ne ko da ngay def nangam wala da nga fiy jóge beneen chose mooy kenn Aziz Ndiaye bu fekkente ni dañuy waxtaan rek te wax dëgg te yàlla tax am na lu mu participer si jeunesse bi dégg naa fi ñu ne moom jàppalewul nii mais mi ngi participer am na Jador am na ay am na ay yoo xamante ni tey emploi yom te ñu ngi liggéey ci moom ñooñu ñu ngi liggéey ci moom di fayeeku seen i xaalis di dimbali seen seen i ak ñeneen ak ñeneen tey làmb ji nii nii nii nii ak lu mu doon doon caaxaan tey am na ñoo xamante ni tey mi ngi siy dimbali ñu ñu siy dimbali seen i beneen chose bi moom mooy que ni kenn du kenn du jàppale kenn ci ay puukare ak ay jëf yu bon ci guddik yonent bi ndax kenn ku ne xam ne ni guddik yonent bi jaamu yàlla la mais nag bu ñu jël benn nit rek am ci moom benn ind wala benn wax joo xam ne ñu ko fii bëgg jaarale wax ci loo xamante ni tamit loolu tamit jaarul yoon nañ waxante dëgg Aziz Ndiaye doomu jaamur la am na papa am na yaay tey ji tey kali yow mii tey yow mii tey wallahi wala simi bu nit juloon tey yenn ji wenn kàddu yi jëme ko si yow nii damay dëgg ji may wax dama koy wax parce que dëgg jooju moom laa xam mais nag bu fekkante nit bu waxee dëgg nag nga mel ko ci dëgg ji loolu moom loolu moom kenn ku si nekk loolu sa bopp sa bopp mu koy def beneen chose bi moom mooy que man loolu laa doon am lu ma doon wax mënatuma parce que soo yow live bi tey mayuloo ma liberté pour ma parce que su ma bëggee nga dagg ma da ngay dem ba mujj gi damay réer. Ah, bu fekkee bu fekkente ni kenn yéeg dama bëgg. mu wax mu ne ma ñuy rectifié loolu. loolu sa jabar mu ngi lay ataaya nga naan ataaya nga ñëwaat man dama bëgg nit buy dugg si sujet nga comprendre sujet bi lan la ñuy waxtaanee dañoo ne. non mais comme mais damaa ñëw comprendre naa sujet bi damaa ñëw fekk fi ñuy wax ne Aziz dafay sacrifier ay nit dafay def naan loolu laa fi doon dégg ñëpp dégg nañ ko. ATM waaw da ngay déglu nga ñëw sama live du benn yoon du ñaari yoon ma lay jël mënoon naa gis sa demande du ma la jël kon ma la fii ba pare de la jëm kii mais dama ne sujet bi. mooy ñun ñëpp danoo gis pour puukare bi ci ci ci mawlute ci gàmmu yi xale yi jigéen ñi toog foofu ak ay xale jigéen ak ay soi-disant ustaas yi ñu toog te ustaas yi ñooy toog ci télé ci rajo yi naan yàlla nee na yonent bi nee na jigéen da war a muuru waaye yàlla nee na yonent bi nee na jigéen da nga war a muuru nga ñëw à deux pas jigéen ñu toog sa kanam muuru ñu waroo foon toog da nga waroon loolu la ñuy waxtaane beneen mais léegi wa wa voilà léegi yàq yi xaalisu nag yooyu xëj na si si si si si si boo yeeg yooyu dimbali waa léegi kali kali kali waxtaan bi bu yemee ci puuk rek yooyu noonu amul problème mais man damaa ñëw fekk fi ay nit yuy wax naan Aziz dafay sacrifier lii deret gi dafa bëri li ñuy rey nangam ak nangam nit ñi lañuy sacrifier dañ leen di sarax ay yàpp man loolu laa dégg mais bu fekkante ni ci gàmm rek lañ ko yemale dugguñu ci vie privée jàmbur bu boobaa mun nañ ci waxtaan ci gàmm googu ak puukare bi kenn ku nekk du ànd ak puukare wala ay yenn melo yoo xamante ni ci gàmm ak yonent bi guddig yonent bi kenn du ci ànd ak kenn mais damaa ñëw fekk fi ay nit yu toog naan deret yi muy tuur ak nit ñi dañoo moytu euh, rek. yàq yi rek man loolu laa fi dégg les trois heures et quelques matin ah, ah, ah, nga ko yàq tamit nañu waxante dëgg tamit man loolu laa fi dégg moo tax ma duggee ci côté boobu. non vraiment da ngay pendant trente minutes nga occupé amoo benn loo mën a teg si raay bi nit ñi comprendre tooguñu fi after si tamit pour ngay naan dama fekk nit ñi ñuy wax ay sacrifice sacrifice nit ñi on te parle nag yeeg béy yi ñuy rey si gàmmu yi moo doy foofu lañ lay waxee. ah non eh, ay ah, Aziz dafa am papa dafa am yaay dafa am na am doom ñun loolu euh, soso ñëwal après que la ñëw soso. waaw gàmmu gi loo si gis bisimilah. waaw man déglu naa live bi et tout après li ngeen wax concernant xam nga gàmmu bi guddi yonent bi sallallahu alayhi wa c'est vrai que ay puukare amu fa yoon ak yooyu noonu xam nga. Euh, mais je pense que mais voilà aussi man xawma Aziz Ndiaye je ne cherche pas à le connaître non plus parce que xawma ko ci réseau yi dong laa ñu Aziz Ndiaye voilà comme la plupart ici mais euh, voilà je pense que ne mi ngi def tamit la nga xamantene lu bax la parce que sama xam-xam rek laay waxee hein su ma juumee nañ wax né dama juum parce que le fait de joxe lek je pense que lu bax la aussi man je dis ce que je pense sincèrement le fait que nga rassembler ay nit jox peut-être def na erreur ci côté ba nga dafa deux bâches et nul n'est parfait je pense que la prochaine fois il va prendre apprendre sur ce point en tirer des leçons séparer pas séparer pas parce que li nga wax lolu kali lolu surtout ci euh, alayhi wa sallam on va pas en ici franchement nga aussi dañuy xaw di exagérer parce que nit ki bu ko xamal sax lu bon war donc concernant sa vie privée je rejoins Atem sur ce point je dis ce que je pense sincèrement franchement concernant la bu wala Papam, ñun followers je suppose que concerné nous, concerné parce qu'on ne connaît pas la base de l'histoire pourquoi la peut-être une une famille parce que ça peut être comme plus profond que cela donc loolu nous ne koo xam parce que am na ci tamit voilà comme l'autre là Gomes la xam xaw ma daf ma harcelé tellement je l'ai bloqué man soso moo tax bàyyeetuma sama compte parce que il a la haine comme ça il parle toujours avec la haine y en a un comme toi comme d'autres ci li ngeen wax dëgg la parce que vous yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na yoo xamante ne waroo paccal wala wara a def yenn melokaan yii mais je pense que je suppose que il est assez adulte d'en tirer des leçons ramener, ne fii ñëpp pour soxor et la prochaine fois il va prendre deux bâches côté homme et côté femme mais il y en a qui en profitent de la situation aussi pour le descendre pour diffamer pour wax loolu xamante ne wóoru leen parce que jullit dafay wax lu ko wóor ku fekkeewul ka nga xamante ne nga naan dafay jaay lu weex te mosoo ko fa fekk mu jaay lu weex wala nga ne diw de mi ngi caga la wala nga ne diw de góor jigéen la te leeru la ah en tant que jullit man je suis pas d'accord comprends nga mais je rejoins ce que tu dis c'est quelque chose de très normal et pertinent loolu mooy yoon parce que goudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor ak jigen ni ni dañu wara nek fe ñe nek fe julli japp lañu wax xam nga lek bi nak bu muy joxe yalla dina ko fay parce que joxe lek aussi lu bax la donc il faut il fait aussi je pense que de son possible mais il peut pas sauver non plus tout le Sénégal parce que y a des trucs c'est aux maire de le faire président de la République moi, ci wara moko wara def après le reste nit tamit mënoo teud aussi nelaw nelaw nelaw di xaar ben monsieur le président de la république bu la génn ci situation qu'on se dise la vérité kali dañuy waxante deug rek suma ma juumee ngeen wax ne dama juum xam nga mënoo toog bu jéemoo da sa adina, après nga xaar ben Aziz Ndiaye moo la war ci sa situation mais man je rejoins idée bi nga wax nit bala nga ko di ko jox jën jangal ko nu muy man non lay xalaatee maanaam nga dimbali nit ki ci la nga xamante ne am jom aussi jéem a góorgóorlu mais on ne peut pas non plus xam nga jël lépp wala nit ki sa mettit wala dara nga nga sànni ko ci ben doomu adama Aziz ndjay il peut pas sauver tout le Sénégal man je dis ce que je pense xam nga mënul sauver tout le Sénégal et je pense que né il est aussi comme il peut donc adina nak ñi dañuy contane ñi mer nonu la on ne peut pas gagner l'unanimité ainsi va la vie concernant la vie privée wam nit ki loko xamal jege ko nit da ngay nangu ndogal gis nañ fi nga xamante si c'est possible la des plus riches du Sénégal commerçant yi la parce que yalla mo barkel commerçant man suma mam Alaaji Mamadou Sylla la won xarituñ mam djuga kébé ñoo lañ doon tuddu avant ñom Aziz Ndiaye ak ñoom maam Jili Mbay te suma mam, si jaar na daara li wax xamna ko je connais mon histoire suma mam Alaaji Mamadou Sylla jaar na d'ara dem ba nek entrepreneur ba génne ci bopam kon yalla mën na la may richesse en 10 ans c'est possible sans nga jaay ay lu weex sans nga don di jaay sa bop wala yu démé non il faut qu'on puisse aussi avoir un un certain esprit de dépassement maa ngi jéggalu nag sama gars yi voilà damay wax donc sama xalaat. amna amna amna solo. comme recadrer woon nga sax débat man ku fekkee début débat bi ba légui gàmm yoo xamante ni dañuy won nit ñi duñ fa wax yalla duñ fa wax yonenti yonent dafay wax politique. ñe ñee jóge fële di def ay taaxuraan xam mhm. ay jigéen ah, def greffage ay góor toog seen wet loolu du gàmm suise boobu laa nekkoon xëy na nag ñeneen ñoo fi ñëw lu weex man néew ma day jaay lu weex fekkewu mu mu tin ñii doon seetaan yëpp gis nañu kali mu campé mooy gàmm yi léegi gars yi di def du gàmm waaw loolu moom jaay bu wootee gàmmu bu joxee ay lekk am na solo na ko yóbbu si jàq yeeg si biir jumaa yi ñii di ñëw di ziar na ñëpp daje ji si jàq yeeg si jumaa yi toog déglu kilifa yi lu ñu waxtaanee. dëgg la mais du ñëw def ay ba seen biir kër nit ñi ñëw toog foofu mel ni réception. ku amul carte invitation doo dugg boo bokkul si yàpp rëy doo dugg. institut institut ñu toog foofu def ko xawaare di jox ay yàpp fii ay ginaar fii ay sauce fii ñii nga xam ne tiwaawu na ne taxoon a jóg ñu ngi sa biir jàq ji di déglu xalif bi lu muy wax. yàlla nee na yonent bi nee na ñoom de l' autre côté demuñu julli ji parce que nit mënul def greffage def ay pause def ay xef ne jour boobu mën nga julli te jour bu nit ne jouru gàmb la lu ñu soxla mooy julli.

non, ce pas, pas des dames quand même. Bah je, vous rejoins, sur ce point. D'ailleurs, d'ailleurs. Ok. Euh, merci, merci, c'est ça, Soso. Euh, Alhamdulillah, ce micro. Qu'est-ce Soso au ce micro, bismillah. Mhm. Allô, salam wa ziar voilà wax sama sœur Soso wax elle a tout dit donc. Euh, Euh, li ma bëggoon dolli rek mooy euh, dafa inapproprié li ñu sol colin bi daal moodul yoon mais leneen li mënuma ci wax parce que xaw ma ko te franchement loolu du sujet bi tey du débat bi donc débat bi mooy seen seen li ñu sol ak pour man sama sama sama gis-gis laay wax parce que ñi ñu fa indi ustaas yi ñoom ñoo responsableul ñoom ñoo nekkul ay motul ay kilifa moo tax mu demee nii mais Aziz deful dara ñi fa nekk tamit defuñu dara man ustaas yi laay parce que diine ak jamono dafa am mais dafa am fu ñu ko war a def guddi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu wax mais pas euh, soirée de gala donc <laughs> voilà donc ustaas yi ñoom ñoo deful seen seen seen euh, peut-être jàng nañu mais li ñu jàng appliqué ko foofu parce que boo ñëwee nga gis man ma sol loo xam ne euh, ma maa ngi kiiwul ak ak guddi tey bi da nga naan ma ah da ngay ñëw nga nga indi s'il le faut sax nga waaraate ci loolu képp ku solul lu baax di nga gêné wu voilà man loolu laa loolu laa gis daal pour man ustaas yi ñu fa indi ñoom ils n'en font qu'à leur tête seen seen seen poche moo leen fa indi dëgg nag <laughs> dafa neexul donc dañuy bañ offenser nit ba li ñu waroon am si ñoom duñ ko am donc motax pour man oustaz yi laay blâmer quoi du du Aziz Ndiaye du du du du ñi nga xam ne invité voilà lool rek la bëggone wax ma ngi remercier di leen balu ak baal ñëpp am solo kon loolu la bu ko défé ñep dañ ci jang bu ko défé li nga xamné amna bu mu amati parce que c'est juste rek oustaz bi bu déggee lii wala ñi di dem buñ déggee lii dinañ xam demuñu anniversaire demuñu koledra demuñu rëmtëm bi tam yaa astukay dañu ne goudi nabi même bu des jours bu mu juddu lañuy ñuy anniversaire la mais du pour pour créer parce que nabi ku mu doon ku rëy la kilifa la jigéen da muuru nga sellal ay pose weey nga dindi greffage nga dindi xef nga dindi nga simple nga dem nga jàpp boo demee si jàqee wala si jumaa nga julli guddi bi yépp nga ñaan ci yàlla loolu la ñu xam mais li ñu gis ci réseaux sociaux yi encore une fois rëmtëm bi tam lañ fa gis ay góor yi toog jigéen toog greffage yi fii ween yi fii si guddi na bi loolu ñi nga xam ne bëgguñu diine bi sax dinañ ne lii mooy diine lislaam lii mooy diine lislaam loolu gàcce la te ñun jeunesse bi ñoo ko war a defar jouru kole dara ku la neex nga baali def lu la neex mais buñ demee ba ne guddi gëm mi sallallahu alayhi wa dafa a rafet sincèrement parler parce que adduna bi yëpp boo demee kenn du gis lu ñu def comme barki dem micro gàmm muy tey doy na waar Zeynab Bamba maa ngi lay nuyu di ziar di ziar ñëpp pense que ni euh, sànq eh. début waxtaan bi euh, seetaan naa tuuti après ma génn après ma duggaat ne tuuti moo tax ma ne naa dugg rek participer euh, ci waxtaan bi tey maa ngi nuyu ñëpp di la ziar di leen ndokkale ci si te mu ful ko te ñu fekkaat yu bari bon man dina wax ci ñaari patch ba ñetti patch concernant ci gàmm yi ngeen di wax man dama gis ni senegal ñun dañu xam teranga muy kër go mënta di dem muy ci mouride ci tijaane ci ñeseeni tay bu amé gan di nga djema lepp lo am nga def ko ci mom ngir teral ko pour man Aziz liko war rek la def moy gàmm jotna ay nit jugé nañ ay kërëm seeni kër dal si kërëm mu teral len fu dolem yam lépp luy xewal mu def ko ci ñoom ngir suñu ñibbee ñu xam ni kat defal nañ leen teranga ndax man mii sax di sama kër gu ndaw gi ak même bu dee 5000 francs laa yor ku ma seeti dinaa génne 5000 lebi ji feneen toggal ko lu mu lekk toggal ko lu mu naan xam nga teral ko daal teranga sénégalais la. léegi nag nit ku nekk yaay xool boo demee ci bërëb lan nga fay jëli lu baax nga fay jëli wala lu bon nga fay jëli parce que bu fekkee Aziz moom dafa jël euh, lu mu am yépp ne moom gàmm rek la am benn bis rek la am. muy gàmmu da ciy teral ay gan parce que yor na kër gu rëy ay nit ñaa ngi jóge feneen di ñëw léegi yow mi fa ñëw yaa ko war a mën a dimbali parce que Aziz moom waree fam def na ko mooy jël na xaalisam bu mu am togg na lu neex jox nit ñi jox na euh, boisson jox na leneen jox na guddi ci yonent bi ma ñëw defuma fa lu dul soloo ko si meeku ak paccal ak i charme waate ak i uti far ak i leneen kooku sama responsabilité la man sama responsabilité la man parce que moom man man dañuy wax leneen mais man kër Aziz xam naa ko bu baax deux ans ci ginnaaw fa laa dal Aziz biir këram dafa am jumaa dañuy julli soo fa fekkee julli waxtu juróom jaamu yàlla boo fa dalee di nga julli def loolu mooy un deuxième moom mooy ko xool bâche bi am na ñu ngi yor seen kurus sol lu jot set yor seen kurus di jaamu yàlla ci bâche ba foofu ñu fa toogoon am na fa toog di jàmm jaamu yàlla gis naa benn xale bu góor kurusam la yor ba gàmm guy jeex tuddul waxul kenn mu ngi jaamu yàlla léegi nag nit ñi fu mbooloo di daje ak fu leneen di bale faw mu am ku ci nekk ak ay intention ñi nga xam ne dañu bëggoon fës ci bés bi indi seen ay influenceur pour di solo ko simé ñu leen wane ñooñu loolu lañ fay am yàlla miy fay loolu la leen di fay ñi fa dem pour jaamu fa yàlla dañ fay jaamu yàlla mais ngal la nit bu fekkee ni da nga nekk nit nga jege ko tey tout le monde sait ni Aziz li muy def ci waawan jàmbaar la mu ngi koy def am na yeneen kër yu koy def boo demee kër as ndaw ndukumaan day day jël taalibe yi ta daara kokki yeeg daara ndukumaan yi yépp mu indi leen fa leen teral keneen ak keneen noonu mais ñëw mi nga xam ne yaa ko jege wala yaa ñëw këram yaa koy dimbali parce que bu fekkee yoolu fay lu baax rek dinañ ko fay Aziz mais yow mi fa dem pour def fa puukare wala pour def fa leneen yaa ko fay def beneen bi may gën a attiré li ma ci gën a metti leen rek moo ma ci metti te loolu moom je tiens à le dire su fekkee ni da ciy mer mu mer su fekkee ni da ci gis boppam mu gis gis boppam parce que pour man c'est pas respectable sax ay nit toog ñëw gàmmu si bàyyi seen kër di ut si yàlla nga naan leen boo leen demee boo leen di nettali nettali leen lii mais as boobu bu fa bu fa jabaram ñëwee muy aaw muy ñaareelam keneen ak am nañ droit gàmmu si mais yow ñëpp toog ngay naan yéen boo leen demee di nettali loolu kuy kuy kuy jàngale diine sax waroo ko jàngal nit ñëpp toog de ay gan kilifa toog xale toog mag toog nga naan leen carrément soo leen demee boo leen di nettali nettali leen lii mais loolu du objectif bi xam nga objectif bi lan la mooy yow mi ñu jox micro ngay wax nit ñi nga waar fa Zeyna mi fa toogoon nga xam ne bu jógee ci gàmm ji war naa mën a defaru zaahiran wa baatinan gis nga euh, Sénégal dafa am ñu ñu tuddee ay nitu diine am ñu ñu tuddee ñoo xamante ni ñoo ñu war a teg ci yoon am ñu ñu tuddee ñoo xamante ni ñoom tey bu naa tey teguwoo ci yoon kooku moo ko teg ci yoon mais tey malheureusement ñooñu noonu au lieu ñu ñu teg ci yoon ñoom ñooy jàdd ci yoon ba ñun ñu leen di recadrer et c'est malheureux tey le terme de imam au distance ak yi ni mel war nañ ko xool xool fii Sénégal parce que dafa am comportement yoo xamante ni ñoom moom lañu war a mel ko mel dafa am comportement yoo xamante ni ñoom ñooñu ko war a inculper tey nit war na dem toog ci tànt ba jóge fa amee fa ab defaru man loolu laa gëm man dem naa fi ay jàng fii am na lu bari lu ma xamul woon fa laa ko falaa laa ko xamee mais bu ñu bu ñu ñu gisee ni yow dangaa ñëw pour wax nit ki lu ko neex non non nit dangay wax lu neex yàlla c'est vrai que relation amitié am na Kali man su ma neexee xaritoog yow su ma neexee xaritoog Khadija ku ma neex ma xaritool ak moom waaye nag bu fekkee dañ la woo ngir yëfi yàlla da ngay ñëw waxtaanee nit ñi ngir yëfi yàlla nekkuñu ci puukare te malheureusement du ma jël du ma ko particulariser ne kër Aziz Ndiaye wala feneen wala Tiwaan wala feneen sinon kon damay tooñ mais réew mi li fi xew Kali ñu waxtaanee ko parce que diine ji dañ ko bëgg jël def ko fowikaay te diine ji du tali man la laa Touba des fois da nga fay gis loo xamante ne c'est du n'importe quoi dangay dem màggal wara a ut wax li def li sëriñ bi wax nga solo fa valeur cinq cent mille francs te yow ginaar bu bu deux mille cinq cent jëndoo ko jox fi nga dal dafa am loo xamante ni nit ñi ñoo ko war a mën a dindi ci événement religieux yi que muy màggal que muy gàmm kay ak yu ni mel nit dangay am priorité dangay am dangay am sens de la vie nga xam lan moo la yëkkati ak lan moo la yóbbu ak lan moo ngay uti coono yi ngay daj jóge Dakar dem ba Tiwaawan nekk ci embouteillage bi sonn bay bëgg a soo demee war nga fa jëlee war nga fa jëlee Touba war nga fa jëlee li nga xam ne moom moo di tiyaaba ñibbisi coono yi nit ñi di daj jóge fii di dem Touba di màggali boo fa jógee war nga faa am yàlla mais moo tax loo ci gis da ngay gis ku ku ku gàmm wala ku màggal day mel ni sa sa sa sa tiyaaba ji nga ci def dañ ko sottiwaat sànniwaat loo ko yàlla da la koy sax sottiwaat c'est yàlla moo am yërmande day yërëm ñëpp il faut que nag ñu bañ a nax suñu bopp bañ a nax suñu borom gudd yonent bi la ñu wax màggal yonent bi la ñu wax na nga set sell sol sa yére bu gën a chair def salaatu ala nabi boo ko mënul nga def astafurlaa te ñaanal réew mi mais nag wax dëgg ma la ko waaw du ma la ko nëbb damay bàyyi kàddu bañ a monopoliser du du du tiwaawan rek kese moo am loolu mais demal ci Sénégal yëpp yu ci bari dama ci moo fi bari waaw caaxaan gi moo fi bari te nag nit ñi nañu am seen fulla ba foo dem fenn fekk fa caaxaan nga jóge fa dem uti yàlla parce que bàkkaar yi ñuy def ci sunu dëkk yi rek ak sunu kër yi ak lu ñuy def tous les jours doy nañu sëkk dafa am ay bis yu xamante ni bisu jaamu yàlla la lépp loo mën ak noo mënta di mën sa jikko war nga koo nëbb war nga koo denc ngir ut yàlla man foofu lay waxee te nag ñi nga xam ne ñoo moom seen kër yi aussi nañu am pus nañ am nañ am fulla Zeyna bu fa ñëwee dafa pàccal ñu ne la bul dugg demal ci biti parce que bu ñuy wax parce que bu wax yow yow la ñuy wax tey tey ñi fa nekkoon fa nekkoon def lu neexu su di yàlla yëpp dañuy dem seen yi tëdd bu ñuy wax Aziz Ndiaye la ñuy wax. te Aziz nekk koo xamante ni. ñoom bu ñu defaree seen base ba pare. ils ont mis leur mm-hmm. sécurité là-bas. Ah, agresseur du dugg sàcc du dugg. kon waroon nañ jox mm-hmm. ordre ne képp ku fi ñëw bàccal muuruwul bu mu dugg. fekk yow borom xew bi yaa ngi ci biir paas bi ku ñëw gardien ñoo koy ne ah kilifa gi de dafa ne muuroo sa boobu doo dugg nga dellu fee nga tool nga muuru da nga si am yàlla da nga si am yonent man man image bi nga xam ne yenn jigéen ñi dañ ñëw nuyu Aziz Ndiaye bu ñu nuyu Aziz Ndiaye mu ngi gis pàccal mu ngi gis eh, lu mu defaroon yëpp day yàq dañu wante dëgg fii tam man je suis quasiment sûr je suis quasiment sûr que ni moom yàlla yàlla da lay fay rek bala mu bañ la fay mënul ñëw nga organiser benn mbir nga dajale ay jigéen jigéen ñi muuru góor yi ñu ngi jàkkaarloo lu la yàlla naroon fay du la fay dara parce que li nga def ak ma ne la Kali man je suis waaye na ci am beaucoup plus de rigueur comprendre nga nit ñi bul bañ ñu ñu ne la carrément da nga soxor wala da nga strict déedéet parce que sa image mooy wax je pense que ni xëy na dina dégg lii wala du ko dégg wala ñeneen dinañ ko ko jottali wala neneen xeyna demen inshallah dina gëna jël ay matukaay képp ku fa ñëw pour poukré nañ jamale sen poukré ci biti mom mi def ay alalam ngir ut yàlla nañ waxante dëgg yàlla la ci ut. lool rek lañ ci jublu de pour li mom bu mu amati. ci waawon bu mu amati Touba gis nga Touba légui jël nañ ci ay mesure ku fa géré phase do jege jakk ji do jege juma ji ku fa monte xef gis nga ko waawon bi nak waxu ñu ci dara ñu ñëw jékki-jékki bëgg def ci waawon comme ngeen non du yoon.